ndax ci waawoon fii alhamdulilah bu tey yàlla waaye nag weer bi ku nekk xam ne bu teroo dinañ fas yéene di jàng li nga xamante ne mooy mbëdd muy bind bu imam Buseyri yi fukki buntu yoo xamante ne guddi bu jot dinañ jàng benn buntu ba ci fukkeel fan bi benn ñu noppalu ko fukkeel fan ak ñaar ñu daal di gàmm guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam ne maam Seydi Hadji Malick leen bind ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xilaas zahab ci nuniya ci miiya waaye nag ci modeste am moo tax ñu dem jël bind bu imam Buseyri yi ñu di ko gàmmoo ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jàllale ci fukki fan yi nga xamante ne bu weer bi teroo ba ñuy guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp ku ne xam ne moom suñu xaymaa li wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwul dara ci moom bi yonent bi nekkee leer ba ni mu nekkee jëm doomu aadama ak ci baax yi nga xamante ne yàlla suñu borom subhanahu wa taala jàllale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ñu tamit ay maamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñu ñu gën ko xamee ci xilaasu zahab waaye nag lu ci mel ni guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy gàmmu ñu di ko defee fii ci Tivaouane ñu dëkk bu sell bi ñu fas yéene ci ànd waa Desk Info TV mu mel ni que comme ni ko defee ci ouverture buurdu bi demoon nañ leen ci yenn gox yi nga xamante ne daan nañ fa def buurdu Desk Info TV nag demoon na leen bàyyiwul dara demoon na leen ci gox yooyu dëttal leen nag lu ci toll ci 24 waxtaan yoo xamante ne def nañ ko ci wàllu préparation gàmmu bi. muy ay gan ci wàllu burdu tey nag ñu ngi fii ci Tivaouane en direct ñu fas yéene leen nga xam ne moom mooy tëgtal burdu bi dinañ leen demal li nga xam ne dafa xewee ci ci nga xamante ne mooy tëgtal burdu bi ñu ànd ceeg waa Desk Info TV ñu bàyyi suñu mbokku xam ne mooy programme ne waa na ko pour waa indil nañ ko yéen téléspectateurs Desk Info TV yëpp pour ngeen mooy guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bàyyi ko kàddu aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi leen di nuyu mbokk téléspectateur bu Deskine Info TV yëpp di leen ziar di leen baal ak ci weer bu tedd bi ñu ne al mawlid di leen wax ni programme Deskine Info danañ leen demal ci guddi àjjuma tey yi nga xam ne section yu bëri tey lañ ñëw pour passer ci guddi àjjuma fii ci Tivaouane dinañ leen demal ci jumaa yu mag bi dinañ leen demal ci préparatif champ de course bi nañ leen demal ci résidence nañ leen demal kër Serigne Moussa Fass ak terre bi bu ñu nee Serigne Moussa Fass xel yëpp dem ci Moustachid ndax njaboote na te ñi mu njabootee man njaboot te kilifa la mat kilifa ñi mu njaboote bu baax a baax nañ leen demal nag ci zawiya Maam El Hadj Malick ak zawiya Maam Babacar nañ leen demal ci zawiya Maam Cheikh Ahmed Tidiane si wan leen ambiance di fa ndax moom mi ne woon Serigne Babacar si abuna na bakrin wa in kaana fi l-haqqi rabbina bihi shay'an illa defal ay émission yoo xam ne en direct lay doon fii ci Tivaouane waa Deski Info des Deski Info yëpp incha allahu rabbi naa leen dinañ leen demal aussi ci après champ de course bi nañ leen demal ci teetu Serigne Moussa Fass kër Serigne Moussa Fass encore une fois nañ leen demal fépp foo xam ne nii day ambiance am fa ba yow mi nekk sa kër ki nekk Tivaouane du la yóbbal daal incha allahu rabbi wa asalaamaaleykum wa rahmatullah